droit kel usb yaangi ngi noonu ah ku bëgg a ay son lamb yu neex mbayang lu ndey faatu ak keneen ku mëna doon son yaangi ci biir 10000 francs lañ koy jaayé voilà ay lu mot presque 300 son 285 son lamb mo ci ne nga def ko sa auto dégloo ko dakar bo mali du jeex nga def ko sa kër wala sa place di ci déglu 2 jours du tax son yu jeex kon amateur yi commander len ci 77 804 86 84 wala 77 779 80 73 fii la neexee ndeysaan arrondissement Fimela la bal wal kenanat tirage bu poids lourd commencé na Mbine Ndiol bu Joal monument bu Kabama ay ñoom lañ jegaloon combat ba ca Joal ñu def face à waaye mujjul woon bëre la mujj fi daaw verdict bi la ñuy tey tey mu leer Mbine Ndiol monument ngee ko Dia production moo organisé woon boobu combat mujjul woon bëre te ñu daje fii ci film la ee eh, Mbirjol Palaka na ko daan na ko ay caar bi sifflé na combat Souleymane Doumbouya Samba Dia ak Boy Faye Sidi Apim moo war Mbaye Diop Ndamou fii Boy Boy daan na Souleymane Doumbouya ordinateur deux techniciens ordi daw na jël ko Mbine Ndiol Ndiol bu Sana Thank you. fa toog jox na leen en ku ne benn avertissement. Ndiol bu Salam bi Ndiol gënaat na. victoire de Mbine Ndiol. ay ca yéen a bokk sowal nay rafet. ayca Boy Faye Badara internet naroon na ci am Boy Faye ordinateur mar mar Mabako Mar Makakuli Bantan. <laughs> asalaamaaleykum mbooloo bi asalaamaaleykum mbokku Afrika. Boy Faye li ngay may Badara internet maa bëriwul. mais damay wax rek ci li nga xamante ne moom la ñu jot a yónni mooy ci la grande délégation ginnaaw bi mu ñëwee délégation bi également monsieur le maire nee na waa amul appui Abou Sissa merci. Merci un mot simple, un mot qui ne coûte rien mais qui adoucit et agrémente le cœur. On aime bien des gens comme vous. Merci, jóge na la ànd ak vous. parce que tax mu wax ko nee na il est indisponible moom la ñu dem Dakar nee na la ànd ak vous xolam yaa ko def. ànd ak vous yéen a far tey suba du benn benn soo nee na ànd ak yéen lépp lu amoon tamit yéen yéen a ko yéen ko pare mais ko ko pare ne wul moom loo xam ne moom parce que ànd ak ay doom yi ay jàng ngeen di samay kàddu kàddu yi dañuy bëre waat kontaan nañ daal ak suñu ànd ak yéen lépp lu nekk di xëpp na ko donc dañuy bàyyi kàddu gi kii nga xam ne moom mooy tonton Serigne Mbaye mu jël kàddu mais avancé la dama bëgg avancé But can we children? But you can go away. Children Thank you. put up. na ko daan na ko mi-temps kii dog Samo pour Pape Bouda Kuršamo Boy Faye Birame Mbissine Sène ay waay e fuutlaal fanu nene ndooram njol ne fa jufa dukooxa koor fa moonoona ndigil waay Birame Mbissine Sène moom ne Diwane di nuyu waa Diwane yëpp Boy Faye Birame Mbissine fii ci Fimela ma dalee mbaa sembe ga dexaat maaf kaana sin ge arbitre atana avertissement Birame Mbissine avertissement Boy Faye dëgg la boorewuñ ay ca dem nañ mi-temps ba ñëw de Boy Faye Birame Mbissine seen Biram Mbissine mboot lay déclenché Faa Mbuda du neex a mboot Faa Mbuda takk na ko saxabal ba dër na saaku ya booy fay Faa Mbuda en finale Boy Faye Grand Amadou Cissé jëlal sa mbar mi nee na ngebu yàlla la du xaalis ana ponkali nee na ana ponkali <laughs> Boy Faye aca ndeysaan arbitre bi sifflé na finale poids léger sa diggante Fodé Mbissane bu Fissel Mbadane ak Ndiack Sène bu Somone di bëgg waa Fissel Cheikh malaysia Fissel di sama tata Abi Sambet saa Sambet wala Malaysia, maa Bakar lay siyaar Boubacar fàttewuma la waaye sama gara Abdoulahad Bob bëgg naa ko ñoom gara ñaani borom nga lu ñuul moo dem bisaan borom nga mulu ruus li fii ci fim la waa angul abu woote lamb ji fi mujjee teg moom Ndiack Sène moo jëloon poids léger yi mu ngi final waat te moom Ndiack Sène mi moo jël dem bu fële ca Diouroup champion la boo dem lu muy def mi Ndiack sol na ko naa foo na Yeah, bisaan ku ne dugal nga benn loxo jàpp si Jackson. Hey, what up, son? Dr. Jackson. Akondego Akono Yane wàcc ko delloo tout droit Fimela ndeysaan final baa ngi noonu diggante Boy Faye la ak Lamine Badi Sélé leen di wax ne nag tey maa ngi taxale nii mais sooruma ci reportage bi dama ñëw sama kalpe réer may ñaan ku ko gis rek waaw Fimela ak li ko war ci lamb ji la kalpe bi la réeree kalpe Lamine TV bi sama numéro 77 804 86 84 am na tuuti xaalis waaye sama carte d'identité bi ci nekk moo ma ëppal solo ndeysaan temps yi mooy loolu de sàcc sama moto fan yee passé tey moo ñëw fii sama kalbe réer tamit mi ngi ñaaw de ndaa guujëg na rooga ma daan yàlla fi de xëy na looloo gën Nabil Patissé Boy Faye sama grand Amadou Cissé borom Passy borom Medina borom A2C maa ngi koy siyaar sama tooma Mamadou Lamine Cissé tooma yi bëgg naa la di bëgg Maxtaar desaan wa angal abu ñoo woote sama tooma Lamine Ndong maa ngi koy siyaar da baax ñu nekk ci Adama Mané ndeysaan su ma nekkee fii laa damay bëgg waa kër maama Ngor Simal di ñaan yàlla xare ko àjjana moom ak yaa faat seen yaa faat Diouf yàlla bàyyi ko fi guddal fanam te nim see ngoor siyaar naa ko seeri lang ndoomuur kara duudu faatu baaba duudu mee bëgg ang of Goyal everybody's selling. le douanier maa koy siyaar doomu goxam doomu Fatick mu nga nekk ca frontière ba côté Karang Petit Sélé tak na Boy Faye Boy Faye nag daa mën bëre suuf yi Lamine Patissé waaye eh, eh, eh, Boy Faye Patissé la war na ko ndombo jël nga loolu Boy Faye waaye Patissé la Boy Faye daan na ko wala lu arbitre wax Patissé la daan na Patissé la daan na Boy Faye arbitre bi nee na Boy Faye moo daan réeroo am na arbitre bi nee na Boy Faye moo daan arbitre bi jaxasoo nañ jaxasoo na jox nañ Boy Faye victoire Boy Faye jël la Abuja Boy Faye jël Abuja